da ne Mia. oui dama bëgg nga way ndax sama xol sedd na ba pare. kon yow defe naa ne sa digganteeg Mia. waaw du indi. da nga ko bëgg. waaye bëgg nga nag ko baax. ku ñëwee ci yow doole tey. bala moo way da ngay bàyyi mu jox la sa cadeau ba pare. su paree way gars yi tourné def leneen. ndaxte sama doom gis naa ko fi ma nuyu ñëpp nuyu ma sama doom yàlla nga eggaleeg sa sago ku joxewul cër doo am cër. da nga ma jox cër moo tax nga jël micro di ma nuyu yal la yàlla defal jàmm léegi nag dafa am lu xew Dieyna daa def lu rëy lan la def dafa am lu mu def ak bokkam kër gay toj Mia jërëjëf sama rakk ji ci lii baa jàmm tey bu nu bésub jey naa bu ñëwee biin sama rakk ji yàlla na nga gudd fan xam na lu tax ma ñaan ko hmm. dama ñëw sa studio may sama am lu ma soxla nga ne ma tijji naa buntu yëpp bu la neexee sax bul fay dëgg la jole di yenn ndoog man di fanaanoog man te bés boo gis bés lay xaar boo ma fayloo woon ma fay def parce que da ngeen di def defe naa ne man maa leen ci jiitu ca ñaawuma bi benn yoon déedéet kon yàlla na nga yeggale ak sa sago jëy naa da nga muñul sa jëkkër te fonk ko ca góorgóorlu te xam ne ndaanaan luy sëy jafe na metti na di nga dégg lu ne di gis lu ne waaye da nga góorgóorlu bu baax man ñi sama gi nga xam ne dafa bari jom lool mais hmm. <laughs> bi tukki bi jotee tukki nga waaye bi ñibbi si jotee ñëw nga borom laaj ma ko. waaye nag laaj jole. waaye nag bi cër joxe bi cër jotee rek am nga ko ci réew xam nga loo am ci réew mi jay naa ñi ne ko kuy sa idol mu ne miyaa gisee kuy sa idol mu ne miyaa rek la bëgg dañu lay ndeyale mbaa ñu magale la mu ne cër bi dama koy jox miyaa gisee waaye jofoo ko fexe nga ba fonk sa ndey fexe nga ba am respect ci nit ñi. waaye fexe nga nag ba koo romb jox ko ko cër ci li nga la. rafet day niroog baax noo tudd nga mel foo dëkk nga mel mel gu bari ñàkk la ku am dégg. saa nee na boo fekkee ñaar ñuy xeex seetal ki ci gën a ñaaw nga toj na ba xam ne moo tooñ xam nga lu tax na xol ba mel noonu la kanam nga mel waaye gise yow koo nag moom waaye nag kooree mu kontaan nga ñëw nag yëg woo ko kenn may jole taal sama mag rek laay àndal ndax moom a saf waaye maa la gën a bëgg nañu delloo la woon fawoon nga ànd ak ami seneen mu baax mi nga xam ne ci farata rek lay jóg umu suñu ménagère bi nga xam ne yàqaloo dara bi yaa gisee bu la neexoon nga di ko defal prestation deux cent cinquante mbaa nga naan coppil ci bii taf ci bii bii na ko rajax waaye yaa ko jàppale dana kaay ma wax la ñaar ménagère man nga ko ci réew xam nga loo am ci réew jëy naa ñu ne ko kuy sa idole mu ne Mia Guissé kuy sa idole mu ne Mia rek la bëgg dañu lay ndayale mbaa ñu magale la mu ne cër bi dama koy jox Mia Guissé waaye jofoo ko fexe nga ba fonk sa ndey fexe nga ba am respect ci nit ñi waaye fexe nga nag ba koo romb jox ko ko cër ci li nga rafet day niroog baax noo tudd nga mer foo dëkk nga mer mer ko bari ñàkk la ku am dëkk saa maam nee na boo fekkee ñaar ñuy xeex seetal ki ci gën a ñaaw nga toj na ba tax xam ne moo tooñ xam nga lu tax na xol ba mel noonu la kanam nga mel waaye gise yow koo nopp waaye nag kooree mu kontaan nga ñëw nag yëg woo ko kenn danga nañ ko ne taal sama mag rek laay àndal ndax moo ma saf waaye maa la gën a bëgg nañu delloo la woon fawoon nga ànd ak ami sareel mu baax mi nga xam ne ci farata rek lay dund umu suñu ménagère bi nga xam ne yàqaloo dara bi yaa gis bu la neexoon nga di ko defal prestation deux cent cinquante mbaa nga naan coppet ci bii taf ci bii bii na ko rajax waaye yaa ko jàppale dana ma wax la ñaar ménagère mën naa sarax artiste waaye saraxe ko fi mu war a dem rek lay dem li mu war a def fekk lay def nga fonk compliqué yëpp teg ko place. jëy naa Mia nee na loolu lu mën a toy dëgg la xam nga lu tax dañu jël cër jox Mia te coful bis fi ku yàkkamti demal tëddi. dëgg la gën mariage su artiste damay doxal ba mu neex te xale yi taxaw yor micro bi tant que joxuma leen micro dañu ko naan kon ku yàpp rek. nañu nañu nañu def la paix rek def ba mu baax. dëgg la lii ma yor nag ma jëm si ci Dieyna jox ma. tijjil ma ko. albatil ma. mi yaa gisee sama rakk ji dafa ñëw. li ma ne la léegi am nga ñaanuk yaay doo torox. dëgg la sa bàyyi la fóotal doo tilim Babacar. waaw. lii ensemble or la Paris. mi yaa gisee. moo ko jox rakam. Jeyla. mi nga xam ne artistes yi bari na waaye danga ne mi yaa rek laa laa laa taamu. Jeyna. kado baa ngi nii mi yaa jox ko ko. gaa yi jël leen photo ana sama rakk sama yi. xale yu nga xam ne ñëw leen jël leen. jël leen toog leen ku jug génn. dama leen di neexal naa rek dañoo moo tax ma naan leen jël leen noonu. lii. non non c'est pas bon xaaral xaaral ñu xool leen. journaliste yi jël leen ak a baax xale yu xale yu bari maanaa ñu ngi nii toog. wala ñoo xëy di ma bindal dara ñu ngi nii toog. dañuy bind xëy naan ndox ay ci jox ma. lii contre la. nee na Jeyla waay man di jey naa rek Jeyla sama doom ji sama nuroo waaye danga ne Mia rek laa laa laa taamu Jeyna kado baa ngi ni Mia jox ko ko gars yi jël leen photo ana sama rakk sama rakk journaliste yi xale yu baax yi nga xam ne ñëw leen jël leen jël leen toog leen rek ngeen jël dama leen di neexal naa ne danoo garaam asi moo tax ma naan leen jël leen noonu lii. non non c'est pas bon xool ñu fii. xaaral xaaral ñu xool leen. journaliste yi jël leen attañoo baax xale yu yaru la. bari maanaa ñu ngi nii toog wala ñoo xëy di ma bindal dara ñu ngi nii toog. dañuy bind de. Babacar dañuy xëy naan ngelaw. Eh sama doom ji sama nuroo waale. nee na bii bu la mayee yaayam may ko sa yaay tubaarkàlla yëkkatil ma coffre bi ci kaw coffre bi nag ku ne xam ne fi mu jugee fan la jugee ami Chanel mu baax mi nga xam ne lu mu indi ci réew mi griffe la dëgg la diggante Amérique ak Canada la koy nga koy jàmmee ba mu saf dëgg la indi ko ci biir réew mi te dara ñaaw déedéet moo ko jox coffre bi jàppal ñaar fukki junni cent mil ñeent fukki junni ñu naan deux cent mille junni trois cent mille ci miyaa gisee quatre cent mille téeméeri cinq cent mille ci miyaa gisee six cent mille six cent mille ci miyaa gisee sept cent mille sept cent mille ci borom looy laaj huit cent mille huit cent mille neuf cent mille. neuf cent mille. un million ci sama waa ji un million. lay bàkk leen un million ci suma waa ji un million. asan seex un million ci suma waa ji un million.

Bia, bienvenue à toi. C'est un plaisir de te voir toute charmante, toute jolie, beaucoup plus jolie que beaucoup. Mention spéciale à toi. Mention spéciale à tous les danseurs, danseuses aussi de, de Bia. Mais mais mais Oumou Nero xam ne tey de. Oumou Bia ma. Waa xarit lii lan la nii. waxi dem Samba. ay ca mu ngi noonu donc Richard. am na lu ñuy def ah, ah. ay humoriste fii. waaw dama ay artistes. Ah, yoo xamante ne dans le milieu des séries bien sûr ñu ngi fii. il a des chanteurs il a des chanteuses. Mm-hmm. tey avant l'arrivée de de nos deux stars bien sûr on va appeler one by one ces ces artistes qui vont venir ne serait-ce que pour une minute deux minutes témoigner de leur amitié.